الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن لا أشهد أن إله إلا الله محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة محمد رسول
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان إذا كان معنى لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفسام لها وهو أيضا نفي العبادة أما سوى الله تعالى كما قال كل نبي لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإذا كانت هذه هي الدعوة دعوة الرسل جميعا ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فإن حقيقتها إذا أيها الأحباب لا تتجلى إلا بمعرفة حقيقة هذين الطاغوت والعبادة mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal mbokk yi ginnaaw loolu sunu xutba tey mooy xaqiqatu taaxuut wal ibaada dëgg-dëgg war na noo ràññee war na ñoo xàmmee ñaari mbir bi ci njëkk mooy lan mooy xërëm ak lan mooy jaamu yàlla su fekkente ne laa ilaha illallah bi ñuy wax su fekkente ne li muy tekki mooy al al kufru bi taaxut mooy danoo war a weddi lépp luy xërëm wal imaanu billahi gëm yàlla su fekkee lool la su fekkee moom la nu dëggal aaya bi yàlla wax fa man yakfur bi taaxut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati l wusqa lan fisaama laha borom bi nee na képp ku weddi xërëm gëm yàlla kooku day jàpp na ci buum gi dëgër buum gi ne ngooy buum gi nga xam ne du fecceeku mbokk yi bu fekkente ne ba tey laa ilaha illallah li muy tekki mooy nafyul ibaada amma siwa allah mooy daq lépp loo xam ne jaamu la gu ñuy jaamu te du yàlla comme ni ko mboolem yonent yi waxe woon bi leen yàlla yónnee ñoom yonent yi kenn ku nekk la nga wax say nit mooy ibudu llaha ma lakum min ilahin gayru jaamu leen yàlla amu leen kenn ku ngeen jaamu ku dul seen boroom bu fekkente ne ba tey mbokk yi laa ilaha illa allah mooy woote mboolem yonent yi comme ni ko yàlla waxee wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an i'budu llaha wajtanibu taaxut xeet bu nekk yàlla nee na yónnee naa leen yonent pour nu jaamu yàlla mooy tëndiku xërëm su fekkente ne ñetti aaya yi li muy firi mooy laa ilaha illa allah kon nanu xam ne laa ilaha illa allah boobu du mën a wér du mën a dëggu illaa tatajalla bi maarifati xaqiqati hazayni attaaxut wal ibada su fekkente ne dëgg-dëgg xam nañ laa ilaha illallah li muy tekki danañ xam ne laa ilaha illallah du mën a nekk ci nit mu wér lu dul mu xàmmee ñaari mbir ñaari mbir yooyu bi ci njëkk mooy xërëm mooy lan jaamu yàlla mooy lan ñëw na ci alquran ak sunna borom bi tabaraka wa taala di nu jàngal di nu wax baat bii di taaxuut li ko alquran tudd ni mu baree al imam ibnul qayim di ñu fari di ñu firil baat bii di taaxuut di xërëm mooy lan mu ne kullu ma tajaawaza bihi al abdu hadduhu min maabudin aw matbuin aw mutaain fattaaxut kullu qawmin yataxaakamuuna ila gayri illahi wa rasulihi aw yacbuduuna min duni illah aw yattabicuunahu ala gayri basira min allah aw yutii'uunahu fi ma la yaclamuuna annahu taatun lillah sëriñ bu mag bi yal nañ ko yàlla fayal muy al imaam ibnul qayim nee na xërëm mooy lépp loo xam ne jaam bi ëppal na ci ci topp gi mu koy topp yow jullit bi saa yoo ëppalee ci ki ngay topp walla li ngay jaamu walla ki ngay roy mu ne su boobaa dugg nga ci xërëm ndax dafa war a da nga am war foo war a yem yonent bi nee na anzilu naas manazilahum nit ñi na ngeen leen wàcce seen wàccuwaay ku nekk dafa am fu mu war a yem saa yoo ëppalee nag ci jaamu saa yoo ëppalee ci topp saa yoo ëppalee ci roy yëgal ne dugg nga ci xërëm fa taaxut sëriñ bi nee na xërëm boobu mooy kullu qawmin yatahakamuna ila gayrillahi mooy nit ñoo xam ne dañuy àtte woo lu dul yàlla dugg nañu xërëm képp koo xam ne da ngaa nangu nu àtte la ci lu dul yàlla lu dul yonent yëgal ne dugg nga ci xërëm mu ne wala mu nekk koo xam ne day jaamu nit wala muy jaamu dara kooku dugg na ci xërëm wala yaabuduna min dunillah wala ngay jaamu leneen lu dul yàlla dugg nga ci xërëm aw yattabiunahu ala gayri basira min allah wala nga topp nit koo xam ne la nga ko toppee dara leeru ci lépp lëndëm dara tegu ci alquran dara tegu ci sunna yow yaa ngi jaamu xërëm yow nit kooku wala aw yutiunahu fi ma la yaalamuna annahu taatun lillah wala benn waay daa di woote ne mbir mi defal leen ma ko nit ñi ñoo wuy si la di la defal mbir moomu waaye nit ñooñu wuy si la xamuñu mbir mii lan la ci yàlla wax su boobaa nit ñooñu def nañ la xërëm yow kon nag da ngeen toll ci waxtu woo xam ne ñu ngi leen di woo ci ay mbir yoo xam ne xamu leen ci dara dara leeru ci ci yéen kon nag li ci diina wax mooy ngeen bañ a wuy ji waaw ñu ngi leen di woo naan waaw wala déet waaw ki ne waaw wala mu ne déet yow mi ne waaw ci loo wax waaw lan nga wax waaw lii ñu lan la waaw waaw nga ne waaw lan la kon xamuñu lan la ah nan xam nuñ ciy demee mbokk jullit yi nanu xam ne min haazayni ci ñaari mbir yii bayna taaxut wal ibaada diggante jaamu xërëm ak jaamu yàlla baatu taaxut lafzun am baat la boo xam ne dafa matale yasmulu kullu maa yudaadu laa ilaha illa allah dafa ëmb lépp loo xam ne dafa contre laa ilaha illa allah lépp lu contre laa ilaha illa allah loolu mbokk yi mooy xërëm loolu mooy taaxuut sawaun kaana shiaaran moo xam loolu xàmmekaay la su fekkee xàmmekaay bii mooy xàmmekaayu dëkk bi te xàmmekaay bi dafa contre laa ilaha illa allah xàmmekaay boobu xërëm la su fekkee ne qaanuunan loi la loi bi dafa contre laa ilaha illa allah ni ngeen xam ne loi boobu xërëm la aw nizaaman wala benn organisation la wala benn gouvernement la gouvernement boobu dañoo contre laa ilaha illa allah su boobaa na ngeen xam ne gouvernement boobu xërëm la aw sax san wala nit la nit koo xam ne la muy wax ak la muy def ak la muy woote dafa contre laa ilaha illa allah dafa wuute na ngeen xam ne nit kooku xërëm la aw raaya wala drapeau su fekkee drapeau bi dafa contre laa ilaha illa allah na ngeen xam ne drapeau bu xërëm la aw hisban wala parti politique su fekkee parti bi dafa contre laa ilaha illa allah parti boobu xërëm la aw fikran aw fikra wala xalaat su fekkee xalaat yii ñi ko génne wala ki ko génne dafa contre laa ilaha illallah na ngeen xam ne xalaat yooyu xërëm la kon lii mooy xërëm sawaun kaana shiaaran bu dee xàmmekaay bu wuteeg diine xërëm la bu fekkee loi bu wuteeg diine xërëm la su fekkee organisation bu wuteeg diine wala gouvernement xërëm la su fekkente ne nit xërëm la su fekkee raaya drapeau la xërëm la su fekkee parti su fekkee xalaat xërëm la mbokk jullit yi am na sëriñ bi tudd al imam muhammad ibnu abdul wahab rahimahullah yal na ko yàlla yërëm nee na anna tawaaxit kasira nee na xërëm dafa bëri ay façon waaye summa haddada ruusahum bi xams waaye nee na juróom yi ñooy principal yi ñoo ci gën a mag nee na awalan bi ci njëkk alcheytan addaai ila ibadati gayrillah cheytaane mi taxaw ne nañu jaamu leneen lu dul yàlla kon seytaane xërëm la yàlla wax na ko ci suratu yaasin aya 60 mu ne alam ahad ilaykum ya bani adam an laa taabudu sheytan innahu lakum aduwun mubin yàlla nee na yéen doomu aadama yi ndax waxuma woon ak yéen ma ne bu leen topp seytaane ndax seytaane seen noon la yàlla nee na li ma waxoon ak yéen mooy bu leen jaamu lu dul yàlla allah taabudu illa allah bu leen jaamu lu dul yàlla wa allah taabudu seytaan bu leen jaamu seytaane kon kooku mooy premier seytaane taxaw ci yoonu yàlla wi gàllankoor jaam yi ba ne jaam yi du nu dem ci yàlla seytaane kon xërëm la ñaareel bi alxaakimul jair almugayir li ahkaamillah mooy buur président njiit lu saay-saay lu jéng lu soppi atte yàlla képp koo xam ne da ngaa jiite ay nit au lieu nga atte nit ña jullit yooyu ci atte yàlla nga changé loi ya xërëm nga borom bee ko wax ci alquran ci suratu nisa aya 60 sànq ci yaasin aya 60 la ci suratu nisa aya 60 la du hasard yàlla def aya 60 60 borom bi nee na alam tara ila allazina yazamuun أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يدلهم دلالا بعيدا برمبنينا خولال تيمو ألم ترى ألم ترى لميتك كي أراب موي انظر وتعجب خولال توارو يا محمد خول غو خمني بو خولي da nga ciy jële ak waar da ngay waaru xoolal te waaru lan lay xool ilal lazina ci gaaña nga xam ne jullit yee nga xam ne yazamuna annahum amanu dañuy wax ne ñoom ay jullit lañ gëm nañu yàlla yàlla waxul ak yéeféer yi de su fekkoon ne yàlla yéeféer yi lay wax du wax ilal lazina yazamuun annahum amanu ñan ñooy taxaw ne ñun gëm nañ yàlla ay jullit lañ ñan ñooy taxaw di ko wax kon jullit yi la yàlla nee na xoolal ñeene ay jullit lañ gëm nañu yàlla waaye lan mooy seen mbir gëm nañu li yàlla wàcce ci yow yuminuuna bima unzila ilayka yow muhammad alquran yi yàlla wàcce ci yow gëm nañ ko wa ma unzila min qablika gëm nañu téere yi njëkkoon a wàcc ci isa ak muusa ak ibrahim ak muhammad gëm nañ ko waaye lu seen mbir lan mooy seen mbir ñii ginnaaw bañ ne gëm nañu yàlla gëm nañ li yàlla wàcce ci yow gëm nañ li yàlla wàcce woon ci yeneen yonent yi yuriduuna an yatahaakamu ila taaxuut ñoo ngi ni dem ci xërëm ba mu leen di atte allahu akbar ñoo ngi ni dem ci géndal ya ñoo ngay dem ca tuur ya ñoo ngay dem ci xamb ya ñoo ngay dem ca tribunaalu layig ba di fa atte woo yuriduuna an yatahaakamu ila taaxut te yàlla nee na kat li graaw mooy waqad umiru an yakfuru bi te waxoon naa leen nañ ko weddi weddi wuñu ko dana leen jaral sax ñu ñàkk seen aq pour bañ a dem ci tribunalu xërëm waaye da ngay gis ñoom ñu ne ay jullit lañ ñoom ñoo fay jiitu yuriduuna an yatahaakamu ila taaxut waqad umiru an yakfuru bi ndeysaan yàlla nee na xam nga lu ko waral ñu ne déet mu ne wa yuridu shaytaan an yudillahum dalalan baid seytaane moo leen bëgg a réeral réeral boo xamante ne dootuñu jub mukk dellu siwaat ci dëgg foofu la ñuy toog mbokk yi ñetteel bi mooy allazi yaxkumu bi gayri ma anzala allah képp koo xam ne dangaa nekk attekat magistrat nga wala juge nga wala wala wala ngay atte nit ñi nga dem atte leen ci leneen lu dul yàlla yow xërëm nga yàllaa ko wax de yàlla nee na waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun ñetti aaya yaa ngoog humu zalimun humul fasiqun képp ku atte nit ñi te atte woo leen ci li dul seen borom wax yàlla nee na yow yéeféer nga yow kàccoor nga yow tooñkat nga ñeenteel allazi yudaa ilmul xaybi min dunillah waa ji nga xam ne dafa taxaw di woote ne xam na lu xew suba waaw comme niñ ko amee woon ay jabarkat ay wootekat ay xarfa fuufa maan yoo xam ne dañuy wax di sànni seeni pitaaw di wax lu xew suba yenn saa yi sax nga gis am na ci ñoo xam ne yàlla toroxal ne leen ci ay combat ñu ne kii mooy daan ñu daan kooku waaw te xëy bu moom xam ngeen li ci yàlla wax laa yaalamu alxayba man fi lsamawati wal ard illa allah wa ma yas'uluuna ayaana yub'asuun yàlla nee na xa- ëllëg luy xew man dong maa ko xam kenn xamu ko hatta yonent bi nee na man xaw ma luy xew suba law kuntu a'lamu alxayba lastaksartu min alxayr wa ma massani suu su ma xamoon luy xew ay kon de lu baax rek laay am kon lu bon du ma laal waaye ñàkk a xam yonent bi sax luy xew suba moo tax mu dem Uhud ñu dóor ko daaneel ko damm bëñam rey Hamza rey Musab rey genn wàllu sahaaba yëpp boo demee ñu ne la bàmmeelu waa Uhud a ngi nii ay nangam milliers personnes ñu suul leen ñu ne la ñu ngi nii su yonent xamoon ne keroog bu ñu demee ñu rey leen ndax day dem kon yonent bi sax xamul luy xew suba kooku mooy ñeenteel juróomeel allazi yaabudu min dunillah wa huwa raadin bil ibada képp ku ñuy jaamu nit ñi di la raamal nit ñi ñëw di summi seeni mbax ne di sujjoot ci say tànk yow xërëm nga yow waajooju ndax yow yaa d'accord nit ñi jaamu la yow yaa nangu nit ñi defal la lu ñuy defal yàlla yonent bi nee na yow xërëm nga bokk julit yi wa ala hada nastati alqawl bi anna shirk zanbu lbashariya al akbar wa madaru sira bayna al umami walrusul huwa ibadatu taghut ma allah aw min duni illahi fi amrayni mutalazimayni ma hiya al iradatu wal qasd wal ibadatu wal itba mbokk julit yi su fekkee ci kaw lii ñu leeral laa ilaha illallah lii la ñu leeral jaamu xërëm lii la kon nañu xam ne bàkkaar bi gën a rëy ci xeet wi mooy bàkkaaru bokkaale nit ñi seen bàkkaar yëpp bokkaale la bàkkaar bi yëpp nu mu mën a toll bokkaale ko jur fu mu dem fu mu ñibbisi bokkaale ko jur ndax ku xamul yàlla lu ko neex lay def ku xamul yàlla ku xamul fan la war a teg tànkam koo xam ne diineem leerul ci moom jàpp na ne julli la dem ñibbi lu ko neex lay def moo tax lu mu def rek day nekk bokkaale mbokk yi ndeke xëccoo bi jaaroon diggante yonent yi ak seeni xeet du lenn lu dul jaamu xërëm yonent ya bi leen yàlla yónnee ñu ñëw ci xeet wi di leen waar ak di leen jàngal nit ñi lànk ba diggante yonent yi ak nit ñi histoire am fi ñu rey ay yonent lu ko waraloon mooy du lenn lu dul jaamu xërëm bokkaale moo tax nit ñi lànk bañ a jaa bàyyi seen xërëm yi mooy ci ne duñu jaamu yàlla tabaraka wa taala mbokk yi ndeke xeex boobu yonent yi doon xeex ak seeni nit ñaari mbir moo ko waraloon ñaari mbir yooyu lan la al iraada wal qasd namm ak jubluwaay nam ma def dara ci diine ak am jubluwaay def dara ci diine wa taawal ibda ak topp ak roy mbir yi ñaar yi rek la woon moo waral bu fekkee bu njëkk bi la amma shirkul irada wal qasd fa huwa tawajjuh ila gayri llahi taala bi cheyin min sha'airi taabud ka salat wa qarabin والنزور والدعاء والاستغاثة طبعا ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى والتاغوت هذا النوع هو السنم أو الوسن أو الجني أو الطماطم bu fekkee bokkaale bu njëkk bi la muy bokkaale ci nammeel bokkaale ci jubluwaay mooy jublu jubal say mbir ci kenn koo xam ne du yàlla saa yoo jëlee say mbir rawatina mbir yi nga xam ne mbiru jaamu la nga jubal ko ku dul yàlla yëgal ne yow day am nga problème bu rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy mbokki jullit yi mbir yooyu nag ngay jubal ci ku dul yàlla ci mbooleem saayiru taabud la ci xàmmekaay yi nga xam ne moom la ñuy xàmmee ne lii islaam moo ko moom kuy jaamu yàlla lii ngay def lu mel ne julli lu mel ne jege yàlla ci sarax wala ci rendi wala nësër wala ñaan wala xettaliku ñii nga xam ne loolu lañ doon def di nësëral kudul yàlla wala di rendil kudul yàlla wala di ñaan kudul yàlla wala ñuy xettaliku ci kudul yàlla boo leen waxee waa yéen lii ngeen def yàllaa ko moom ñu ne la noonoo ñun dañ koy def ndax mbir yi moo ñuy jegeel yàlla ma naabuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa soo gisee man may raay bàmmeel bi wala may tibb ci suuf si wala may sujootal bàmmeel bi wala may rendil garab gi wala may rendi di sangoo deret ji boo leen ko waxee ñu ne la su ma ko defee damay jege yàlla lii moo may yóbbu ci yàlla moo tax mbooleem fii ñi daanu ci wasiila foofu la ñu daanoo koo wax mu ne nit dafa war a am wasiila ku amul kilifa jinne nekk sa kilifa loolu lañ lay gëmloo seytaane nekk sa kilifa waaye ban wasiila la ak lan mooy wasiila loolu mooy wax ji yow doo ñëw rek nga jël wasiila wala nga jël mbir mi ni mu la neexee yow nga firi ko déedéet diine lislaam boroom xam-xam yee ko firi diine ji yonent bee ko jàngale ginnaaw yonent bi sahaaba yi ginnaaw sahaaba yi taabiin yi ak aimma yi ñoo ko firi ba mu leer nañ benn bu nekk ñu ne lii la waxtu woo buggee def dara ñu ne lii la loo xalaat ñu ne lii la waaye yow nga ñëw rek ak say mbiri bopp waaw samp say xërëm commencé ren bi suñ waxee nga ni daf may yóbbu ci yàlla kon loolu nañu xam ne xërëm la loolu mooy tomb bu njëkk bi ñaareel bi mbokk yi te muy beneen bi nga xam ne mooy shirku taa wal itba mooy bokkaale yàlla ci topp ak roy fa huwa tamarrud ala shar'i llahi taala mooy féttërlu ne yàlla li mu wax di fi am mooy li am ci sunu jamono bi tey ay nit ñoo xam ne ñooy indi seeni loi ñooy indi seeni xalaat imposé ko nit ñi fal force xoolal quatre-vingt-quinze pour cent musulmans tey ci Sénégal loi yi ñu leen indi leen ko atte ak di leen ko voteloo xamuñu ko benn loi dëppoowu ci ak téere subhanahu wa taala sunu borom benn loi ci loi yooyu dëppoowu ci ak sunu diine te ñun ñëpp nangu nan ko xam nga nit ñi dañ leen ne nañ wote ji ñu ne wii wala non aka neexoon bis ba kenn ku nekk bañ a génn sa kër tëdd nelaw su ko su ko su ko su ko treize millions yi sénégalais yi defoon kon lan la ñuy wax kon dañu xam ne sénégalais yi gëm nañ seen diine allahu akbar suñ leen waxee waaw yéen lu tax génn leen wote ji ñu ne ñun ay jullit lañu te lii du islaam waaye xoolal su boobaa suba ginnaaw suba bark su bis baa jullit yi ñoom ñooy dem jël lu dul li yàlla wax teg seen kaw ne ñun lii la ñu bëgg a dund ab jullit amul droit dund lu dul sharia kon kenn dina ne waaw man su ma amee problème mu police nag da ngay dem waaye doo fa yóbbu nit de nangul ñu yóbbu la yow nit bu lekkee sa àq sax bàyyi koog yàlla bul ko fa yóbbu ndax waa ji dina la rëcc fii ci àdduna waaye àllaaxira du la rëcc alaysa allahu bi ahkamil haakimiin gis nga shirkul haakimiya nga xam ne tey sax duñ ñu ko jàngal ci téere yi moo ñu indil problème bi parce que dañu jàpp ne loolu du shirk inil hukmu illa lillah yàlla nee na atte maa ko moom léegi nag nang lañ nangoo kon atte wala lu sariya te yàlla nee na inil hukmu illa lillah wax naa sànq yàlla nee na dama leen sant ngeen weddi atte bu dul sama atte lan la yàlla waxoon yonent bi fala wa rabbik laa yuminuun hatta yuhakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajiduu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima yàlla nee na yonent bi ñii suñu jullee bëgguma ko suñu wooree bëgguma ko bu ñu ajee màkka bëgguma lu dul bu ñu amee problème ñu ñëw àtte ko ci yow mii hatta yu hakkimu ka addamir yaudu ila man ila nabi sallallahu alayhi wa sallam hatta yu hakkimuka fi ma shajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima loolu la yàlla wax kon mbokk yi nañu xam ne bokkaale gi gën a rëy mooy fetteerlu atamarrud ala charillah fetteerlu ne yàlla li mu wax du fi am loolu tey lañ ñu imposé soo waxee charia ñu ne waa yéen dimbali leen ñu ay charia Sénégal du ay jullit doo nga fi nekk waaye mais quatre-vingt-quinze pour cent ñaata lañ quatre-vingt-quinze pour cent Sénégal ñaata lañ ay jullit ñu leen di tollaleeg deux pour cent ak ay un pour cent ak ay zéro virgule quatre-vingt-quinze pour cent 13 millions musulmans waaw foo tourné jàkk mbag mbedd yi allahu akbar allahu akbar ashadu an laa di yuuxu fekk du dëgg fekk du dëgg gëmuñu yàlla dañuy wax rek mbokk yi li gën a doy waar mooy fetterlu wa adamu tahkimihi fi suunil xayaa ñu jël sunu dund atte woo ko keneen bañ ko jox yàlla loolu moo gën a garaaw ci bokkaale sunu dund gi koo gis lépp ci diineem ci mbiram yàlla bokk ci loolu moo gën a metti moo gën a doy waar ñu jël lenn ci sunu diine rek lenn rek lañ nangu lenn julli julli sax kenn ku nekk ci ñun nu la neex nga koy defee waaw ñu la neex ci julli gi moo tax nga gis façon yu julli yu bari ak jaamu yàlla yi nga ñëw ci aj màkk booboo gën a doy waar moo gën a doy moo gën a yéeme kon nit ki day nangu léppam léppam nekk diine lan la yàlla wax ci alquran ci suratul baqara afa tuminuuna bi baadi alkitab wa takfuruuna bi baad fama jazaau man yafalu zalika minkum mu ne illa xizyun fi lxayati dunya wa yawma alqiyamati yuradduuna ila asaddi alazab wa ma allahu bi gafilin amma taamaluun waa yéen yéen ne gëm ngeen yàlla da ngeen a bëgg a jël lenn ci diina ji gëm ko lenn li ngeen teg ko fee buñ ne tabaski yéen ñëpp ngeen daw rang daral yi ndax bëgg a lekk yàpp waaw Sénégal nattu bi leen yàlla nattu mooy bépp jaamu yàlla bu am lekk boo moom fal force dañ koy def parce que dafa am lekk gis nga ngénte ki amul sax danaa neen foo ngeen dimbali ma quoi imam ñaanal ma gars yi foog ma jënd xar amoo koy wàcc na la mais fal force foog ma lay xaar parce que da nga xam ne di nga lekk gis nga dëj xoolal dëj xam ngeen nu mu méttee mais foog ñu lekk dëj bi gën a ngande nag nag boobu noonu lay gën a ngandee parce que dafa am lekk tabaski soo mënul sax di nga dem wëri nga leb parce que am na lekk ceeb am na lekk ma ne jaamu yàlla yi am lekk yépp ñun sawar nañ ci waaye jaamu yàlla yi nga xam ne amul lekk nga xam ne daa métti koo wax mu ne sawaay yàlla soxorul de yéen rek yéen a soxor sawaay bàyyi la ñu nii rek yàlla xam na ñun xam nañ loolu mooy diine yàlla nee na da ngeen a bëgg a gëm lenn ci diine bi sànni leen ni fële loolu ngeen bëgg a def xam ngeen lan mooy fayu ku tànn lenn ci diine bàyyi leneen illa xizyun fi lxayaati dunia yàlla neen dama koy toroxal ci àdduna mooy li julli di torox tey xool leen monde islamique julli ji ni ñu sonnee feebar bi fan la ëppee ci jullit yi ñàkk gi fan la ëppee ci jullit yi toroxtaange gi fan la ëppee ci jullit yi moo tax yàlla mu ne illa xizyun fi lxayaati dunia mu ne wa yawma alqiyama yuradduuna ila asaddi l azab foofoo gën a doy waar kon ab jullit sharia yàlla lay attewoo ab julit du jël leneen ceddo du jël lu dul diine di ko teg ci kaw diine yàlla borom bi wax na ci suratul maida aya 50 afa hukmal jahiliyati yabghun waaw yéen da ngeen a bëgg a jël atte ceddo teg ko ci kaw diine yàlla atte ceddo lu dul dëggu yàlla moom ngeen bëgg afa hukmal jahiliya yabghun attey ceddo lu dul diina yàlla moom ngeen di jël borom bi laajaat ñu ci suratu shu'ara aya 21 mu ne am lahum shuraka shara'u lahum min ad-diin ma lam ya'zam bihi llah da ngeen a am ay kilifa yu dajaloo ci seeni néeg ci seeni assemblée daa di defar ay loi indi leen jox leen ne leen bàyyi leen loi yàlla yi ah am lahum shara'u lakum min ad-diin ma lam ya'zam bihi llah da ngeen am ñeneen ñu leen jox ay atte ngeen jàpp atte yooyu bàyyi samay atte acca bismillah jël leen kon wa taaxuut haza naw huwa zuama wal kuhana su fekkee xërëm ci wàllu wii la kon kilifa yi ñooy xërëm yi buxaaba yi ñooy xërëm yi alkibaar wal azma wal awda wa taqalid wal araaf wal qawanin wa dasatir wal ahwa yépp ci ay xërëmu jamono la mbokk yi yëg leen ne lenn ci ay kilifa diine ay xërëm lañ yëg leen ne lenn ci kilifa nguur ay xërëm lañ na ngeen yëg ne lenn ci ay mag ay xërëm lañ lenn ci azmana jamono bi ni ko nit ñi di jaamoo xërëm la ak awda yenn ci ay mbir ay loi yu ñuy teg nit ñi di ko topp loolu tamit xërëm la wa taqalid yenn roy yi roy de sama maam lii laa fekk muy def ñun suñu dëkk lii la ñuy def seen dëkk boobu ñëpp ay jaamukatu xërëm lañu ndax yàlla waxul nañ xool benn dëkk yàlla dafa ne nañu ko jaamu moom ci boppam wal aaraaf wala aada ñun de aada bi lañ fi fekk aada ndeysaan wal qawanin ak yenn loi yi wa dustuur ak constitution ndeke constitution sax xërëm la da ngeen di jël constitution wu nit bàyyi constitution wu yàlla da ngeen di rafetlu constitution nit ngeen bàyyi constitution bi leen allahu subhanahu wa taala jox cey ku ko def cey ku ko dund ba nga faatu ñu dugal la ci bàmme armeel yi ñu dugal la ci morgue bi sang la ba nga set indi la teg la ci kanamu jàkka ji ñu jullee la ñu yóbbu la armeel yi ñu teg la ci kanamu yàlla yàlla mu ne la waaw ana sa constitution bi nga doon topp nga bàyyi sama constitution looy tontu allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله ñaarel tomb mooy العبادة هي العلاقة بين هذا الكون بكل ما فيه من جمادات وأحياء وبين الخالق سبحانه وتعالى وهي الغاية من الوجود الإنساني بل من وجود المخلوقين المكلفين إنسا وجنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون mbokki juliti ñaareel bi mooy jaamu yàlla jaamu yàlla mooy relation bi dox diggante jaam ñeeg borom jaam ñi jaamu yàlla mooy réseau bi dox bii jokkale téléphone bi ak satellite bi loolu mooy jaamu su yàlla amee jaam am jaamu amul amul réseau téléphone bu amul réseau lu ko nit di doye su jaam amee yàlla am jaam bi jaamuwul boroomam nekkatul jaam leer na wala téléphone kañ lay am njëriñ mooy mu jokkoog réseau bi su ko defee suñ ko wooyee jot ko su wootee jot lépp lu mu soxla mu am waaye am naa téléphone de ci marque yi mujjee génn la un million lay jar waaye ku ma woo de doo ma jot dugal ko ci mbalit mi ay bagage dong la lay yokk jaam bu am boroom nekk ci kaw suuf te jokkoowul ak boroomam kuy dee la dafa yaakaar ne mu ngi dund waaye dafa dee moo tax yonente bi alayhi salatu salaam daal di koy firi firi bu ndaw masalu llazi yazkuru rabbahu wallazi la yazkuru rabbahu masalul hayyi wal mayit terminé misaalu jaam bii tudd boroomam ak jaam bi dul tudd boroomam mi ngi mel ne kuy dund ak ku dee sa waay ku dee ci biir kër ñu teg ko ci saal bi lan lay yokkal kër gi problème kese fekk nit ñaa ngi koy gis rek problème a ngi ñëw moo tax ku dee rek gaa yi dañuy gaawantu njaltinee mo galle o nawen moto jamaato ha bandiraɓe renda ayi ko tagi ɓe woppanimo e nder saalo o lelo ko tagi ɓe tellinimo leeso ngo ko tagi ɓe yaltinimo le- galle o ko tagi ɓe woppanimo o ajjo e hakkunde galle he kala arɗo ande ko joom galle o nani ala kala yiɗomo tan ɓernde ma taƴay kala ko dañnoɗa a yejjitto haadi en yimayɗo omon e yeeso men sen en en mbawata ñamde en mbawata yarde en mbawata lelaɗo lelade holde dañaten jaam so wona yaltinen mayɗo nawonmo to ladde to weddoden mo arten sen arti noon ndeysan buku de waaji faato ci diggi kër gi kenn du ko fa denc de yenn saa yi sax nga dégg olof yi di lépp ne kii moo lakkale comme deewu timis reerul tere nit ñi reer allahu akbar léeg-léeg nga dégg nit ñi di ko wax kii aka lakkale comme deewu timis xam nga ku dee timis moom yow doo reer waaye tere nga nit ñi reer kenn du reer allahu akbar te pourtant ay ginaar lañ préparé woon de mais kenn du reer parce que ku dee moo dee moo garaaw léegi nag ki nga xam ne du tudd boroomam jaamul boroomam mokku dee ñoo yem day dox ci kaw suuf waaye dafa dee taxsabuhum ayqaaz wa hum ruqud da nga yaakaar ne dañoo yeewu fekk dañuy nelaw loolu mooy jullit bu jokkoowul ak boroomam allahu akbar lan moo tax nag jokkoo wax sa boroomam sa boroom parce que yow xamoo lan mooy jaamu yàlla mboolem jamaadaat yi yi wow mboolem liy dund loolu moo ko jokkaleeg yàlla gis nga li nekk ci univers bi yépp dafa jokkoo yàlla wa in min shay illa yusabbihu bihamdihi amul lu ngeen di gis lu dul mu ngi sàbbal yàlla garab gii ngeen di gis mu ngi sàggaale mu ngi sàbbal yàlla tabax bii ngeen gis mu taxaw mi ngi sàbbal yàlla yàlla moo ne wa in min shay amul lenn lu dul mu ngi jokkoog man doomu aadama dong ak ginne ñooy lànk ne duñ jokkoog yàlla moo tax yàlla tuddee leen saqalay ni ñaar ñu dëgër bopp léegi nag yàlla indi la ci kaw suuf yow pour nga jokkoog moom yow nga dagg buum googu nga féeteer lu daw dem sa yoon ba yàlla jàpp la nag indi la ci moom ndax rëcc nga moo tax yàlla nee na du ngeen rëcc wa ma antum bi mujizin kenn ci yéen du ma rëcc du fil ard wala fi sama du ci suuf du ci asamaan bu leen bu leen yaakaar ne da ngeen a rëcc wallahu min waraihim muhiit yàlla nee na yéen ñëpp dama leen a wër ndomba kenn mënu maa raw kon bu nu kenn tàqaleeg sunu boroom bu nu kenn bu kenn dox sunu digganteeg sunu boroom ay ñaar téeméer ak ay kilo ceeb ak ay tiset ak ay ay ay ay bu mu tax ëllëg nga dugg bàmmeel boroom bi mbugal la mbugal moo xam ne xaalidiina fiha abad maa daamati samaau wal ard allahu akbar abdullahi ibnu omar dafa nekk ci naaj bu tàng jër mu ne may leen ma ma naan gaa yi daal di koy indil ndox mu sedd bi mu guuxee ndox mi rek mu jooy gaa ñi ne ko abdallah nga naan mar naan ne may leen ma ñu may la ngay jooy mu ne waaw ñu ne looy jooy mu ne sama xel dafa dem ci waa safara ñu ne ah lan la mu ne waa safara bu ñu duggee safara li ñuy gën a bëgg mooy ndox ndax dañuy xool waa aljana naan an afidu alayna min alma te waaye may leen ñu ci ndox mi ñu naan la ilaha illa allah may leen ñu ci ndox mi ñu naan an afidu alayna min alma waay waay may leen ñu ci ndox mi waa aljanna xool waa safara ne leen inna allaha harramahuma ala alkafirin yàlla araamal na xéewal yi ci waa safara xam ngeen yàlla ñan la wax foofu kafirin alladina attaxasu diinahum laiban wa lahwan ñi nga xam ne seen diine yëpp ay fecc la ak ay sabar ak ndënd di tëgg di yuuxu di cëppi cëppi ba dee ñëw lahwan la yàlla wax su ngeen jógee ngeen dem araaf ngeen xool aaya bi al alquran la wala du alquran allazina attaxasu diinahum laiban wa lahwan kon nanu jaamu yàlla mbir mi lu mu metti metti nan jaamu yàlla nanu bëgg yàlla nanu roy sayduna muhammad nanu xam ne kaw suuf aduna alaxira asamaan ak suuf fenn du yaatu ci ñun lu dul topp laa ilaha illallah muhammad rasulullah leneen loo topp bis dina ñëw nga bàyyi ko taxaw ci kanam yàlla ak ku mu mën a doon ak kilifa gu mu mën a doon gu diine la gu aduna la gu alaxira la di nga ko bàyyi fekk yàlla te bu leen foog li ngeen di dégg fii ni alaxira am na ko fa mun dara ñépp moom lañ gëm moo tax ku nekk def loo neex ku dugg bàmmeel loolu foofu lay leeree fii moom ku nekk mën ngaa cëppi cëppi ku nekk mën ngaa ngemb ne ëllëg man mun naa mun naa dékku yàlla na yàlla ñëw ñu karaate waaye bu duggee bàmmeel foofu la mbir mi di leeree allahu akbar sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam soo laajee tey jumaa ji ku gën ci nit ñi luñ lay tontu ñu ne la muhammad amul werante xayru xalqillah muhammad moomu moo jullee nit moo sang nit ku faatu moo ko sang ak yéreem manto bi mu doon jiitee la ko sang amaana yàlla yërëm ko moo ko jullee moo ko dugal ci bàmmeel bu mu paree bëgg a ñaan yàlla mu ne ko astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum walaw istaghfarta lahum sabiina marra falan yaghfir allahu lahum wala loolu du alquran wala loolu du alquran wala loolu du alquran nga jéggulul leen wala nga bañ leen jéggulul soo jéggul woon juróom ñaar fukki yoon ku mel ni yàlla du ko baal te maa ngi lay mettre gardon attention yow muhammad ku mel ni bu deewatee bul taxaw ci bàmmeelam wala taqum ala qabri waxuma laa nga naan da ngay ñaan ba nga tax ba kenn ku mel nii dee nga taxawate ci bàmmeelam yàlla di met garde yonent bi yéen ngeen ne am ngeen koo xam ne day ñëw poñe yàlla ne fal force aljanna ren delloo suñu xel lu dul yàlla neen la te lu dul yàlla du dëgg te lu dul islaam ci kaw suuf du dëgg inna diin inda allah al islaam اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله